Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf géopolitique gi jax na lool jamono ji réew mi quotidien fësal tey ci xëtam bu njëkk a du Ba mi nga xamante ne démb wane na boppam gannaaw lajj gi mu def ci élection présidentielle bi wees digganteem ak Macky Sall waaye tamit ak Ousmane Sonko ba ci sax finance publique yi nga xamante ne tolluwaay wi bokk na ci ñu koy jëm baaraamu tuuma mu mel ni moom jëruñ ju njëkk ja woon daal dinay génn fa mu doon làqu le quotidien ne ko kay Amadou Ba ci boppam jamono ji dafa mel ni ku yéeg ci ring bi fas yéene defante ak nguur gi fi nekk ci ay kaddu yu mu yëkkati ni ki démb ci ab ndaje ci makaanu parti socialiste moom amadu Ba nee na amul benn rapport bi nga xamante ne mus na koo képp wax na sax ci vision 2050 bi mu jàpp ni kon lii mënul sukkali réewub Sénégal kaddu yi amadu Ba yëkkati les ko gis ni kon démb dafa mel ni ku toroxal Macky Sall waaye tamit songu ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko laata mu mel ni ku yëgle moom jamono ji ndax seet na wicc moom Amadou Ba indi tontu jëmale ko ci Ousmane Sonko ci biir Vox Populi mu weddi lépp li nga xamante ne ngàll nañ ko ci ndoddam rawatina chiffre yi ci finance publique yu ñu jàpp ni kon bokk na ci ñu ko salfaañee ba ci sax alal gi nga xamante ne dañu jàpp ni li mu ko amee lewul lew na am déet wala boog tuuma am na bëgg-bëggu Ousmane Sonko daal mooy yëfi leer moo tax ci réew mi quotidien moom premier ministre di njiital Pastef lancé ne ab défi ki nga xamante dina indi ay leeral li moo tax kon enquête ne ko Sonko dafa mel ni ku défier amadu Ba ci ab face à bi nga xamante ne musuta am ci débat bi ñeel koom-koomu réew mi ni ñu ko doxalee ba ci moom sax li nga xamante ne moom la ñu koy tuumal yéene kaay bi ne kon xëy na lii bu anto mën na nekk lu ñu mën a méngale ak li xewoon ci atum 1978 diggante Moustapha Niass ak Mahmoud Diop yéene kaay bi dénk ci kàddu Issa Sall di ab taskatu xibaar mu jàpp ni kon lii bu amee gullat la war a doon rawatina bu fekkente ne kii nekk ci nguur gi moo sàkku ci ab opposant am ñu amal ab débat libération ne ko kon débat bi boo moytul mën naa am diggante Amadou Ba ak Ousmane Sonko bu waree amit Walf Quotidien nee na waa Walf TV moom noppi nañu ngir daal di koy organiser Macky Sall ak Karim ñi nekk ca biti réew di organisé seen parti yéeni kay groupe Walfadjri bi di xam ne ni kon ñoom ñi ay opposant par clic lañu maanaam ci xarala yees yi la ñuy sukkandeku fas yéene defante ak Ousmane Sonko de ci fal moom bàyyi na defante ak Ousmane Sonko ndax l'observateur naka ni moom njiital PRP gisee na démb ak premier ministre di njiital Pastef njiital gëm sa bopp réew mi quotidien mu ngi ñuy xamal ni duut nañ ko démb ab mandat de dépôt las di ko dëggal ne Bougane Gueye Dany yóbbu nañ ko ca prison bu Tambacounda lu nu koy toppee bokk na ci fippu alkaati yi ko ne taxawal mu lank ndaare ba ci sax ñàkk warmal ay agent la tribune gis ni lu ñu teg loxo Bougane bokk na ci luy nasaxal démocratie ci Sénégal Bougane ci l'observateur yi tamit mu nekk diggante jant ak lëndëm kurus yéenekaay groupe Futur Média bi di jàngat stratégie politique bi nga xamante ne moom njiital mouvement gëm sa bopp jël na ko suñu naataango mel ni ñu koy méngale ak xeetub xaru Bougane di dugg Ahmad Suzanne Camara di génn Vox Populi du ñu xamal ni moom responsable APR bi mujj na am liberté provisoire ni ki démb démb ca Diamniadio la ñu door état générau transport public ci Sénégal l'info yéenekaay du ñu xamal ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mi jiite woon ndaje bi daal dinay fësal li nga xamante ne moo ciy mbëbëtam muy priorité ngir xeex accident yi ci Sénégal ne kon yenn yi léegi faaw ñu daal di koy dakkal ndax moom njiitu réew mi dafa jàpp ni accident moom mënuñu jël lépp rek di ko wekk ci mbiru yàlla ndax te ñu ci bëri sëfër si ci tali bi ci seen wàllu bopp ñoo koy soxee ndajeb état généraux yooyu soxal tamit le soleil yéenekaay aan bi njort ni bu ñu ca jógee secteuru transport ci boppam moo war a soppi xar kanam njàng mi ñu doon xaar mu soppi xar kanam Sud Quotidien mu ñuy xamal ni ndorteel bi daal bëri na ci ay pression ndax jàmmarlo yu ñu nemmeeku démb diggante ay étudiants ak way takk ne tamit SAES soobu na ci loolu tax na ba jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi Abdourahmane Diouf di dalal xelu syndicaliste yi buur si tamit daañu ko tàmbalee fay fii ak ñaar ci ay bis laata bourse yi L'As Quotidien mu ngi ñuy xamal ni lu jëm ci nouveau bachelier moom lu ëpp juróom fukk ci téeméer boo jël am nañu seen orientation ba noppi équipe bu Sénégal bu but choc am ndamam bu njëkk ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci Égypte Rewmi Sport di xam ne ni kon suñu gaynde yi daan démb Malawi juróom benn bal ci benn